asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi maa ngi yëkkati kàddu yoo xam ne day nuru kàddu yu cant waaye day soppi ku nekk kàddu yu ñaan te su ma ko yëkkatee ma sàkk ko waale ko ci képp koo xam ne jàkkaarloo nga ak imaas bi li ma tiim ab machine la machine bi nag jëmm ji mën naa tuut ci zaahir mën naa yemit ak machine yu bari waaye jëf ji moo tax duutu mën a nuroo ak machine yi duutu mën a yemoo ak machine yi dend na ak ay machine yu yeneen waaye bii rek lañ ci joxoñ moom rek moo tax it ñu yëkkati sunu kàddu mu di machine boo xam ne sunu jarbaat sëriñ Gànne Mesere Maxtaar moo ko jënd ci coobarey boppam andil ma ko fii ci Assalaamy Assalaamy TV na ma daal materiel bi ne ci assalaami yépp su ma ko mënoon a jënd maa koy jënd waaye nag bu ma sañoon am lu ma nekkal Assalaamy loo xam ne ku fa ñëw danga xam ne sëñ Gànne moo ko fa def loolu nag wane na ne fu ma def sama loxo bu ma gestoo gis fa loxoom loolu muy jëf ju rëy ci man lool mu yabal sëriñ Daaru Jéy sëfooram mu ànd ak sëñ Mortala Kan ak sëñ Ousmane Jaw ñu andi ko ma leen di seereel sama cant ak sama ñaan di ko wax ne ko ba ma koy fekk ca atelier ba ca saam muy tiim machine di ñaw yéene jama amoon màggatut sansewut ak bi ma koy fekk ci kërug boppam te booba mu nekkoon ci kër wayjuram xàmmewuma ko ak bi ma ko fekkee ci kërug boppam mu gaare ay otoom ne ko ñaan ya ma tàmbali woon rek moom lay continé di ñaan yàlla lépp loomu am taraanga tey yàlla na ko joj suba ji ëpp te bu ko joj suba ji ëppee yàlla na ko gën a barkeel ba noppit nag yal na ànd ak ñaanu sëñ Tuubaa googu mu naan wa ardahu ijhal arda risqin wa amaan na nekk wërsëg wu ànd ak kaaraange kóolu téef moo xam ne ca bokk te lu mu doon it na doon ngërëmul sëñ Tuubaa eh, maa ngi yóbbantee cant ci moom ak i ñaan ak xol bu sedd ak xel mu dal te di ko gën a encouragé it nag ci waaru sëriñ Tuubaa wi eh, di ko xamal ne kuy liggéeyal sëriñ Tuubaa su liggéey ba ànd tokki coow ànd tokki nattu war ngaa xool ba xam liggéey ba yàlla gërëm na ko la déet ndax sëñ Tuubaa moom daa xam ne doon naa yonent bi ba doon na léppam kon kuy liggéeyal sëñ Tuubaa war nga caa doon waale loolu ku ñedd saayir ku doon saayir war a ñedd baatin saayir balaa mën a taxaw am baatin kuy rëbb day xiif ak mar sax mbaamu guddee baadu fetal lañ taamu kon nag na teg tànkam foofu maa ngi ñaan yàlla yàlla na àgg fa mu jëm te bu mu ànd ak menn ndog ñaanal ak ñi koy jàppale ñaanal ko ak njabootam ak ay soxnaam ci turu nag Assalaamy TV ci njiitul alaaji Fallou Sylla sëriñ Fallou Fall soxna maam Faati Fall ak ñiñ ko seqal ñëpp maa ngi leen yëkkati kàddu cant ci seen tur di ko sant di ko gërëm di ko ñaanal yàlla tawféex ju ànd ak tey siir ci barkeb sëriñ Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.